jadi jadi jangan tahu

yaakaar naa enseignant la nañ dem déglu Dambou ñëwaat li mu wax diggante moom ak Amadou Ba ne du combat. ñoom ñoo jiite réew mi en 2024 alors que sénégalais yi doyal nañ ci ñoom kon nag bu ma kenn euh, euh, comparé ak Amadou Ba yéen ñi koy def ci internet bi dama leen di ñaan bu leen ma comparé te ak Amadou Ba surtout sax que saa njóog gis naa ko muy comparé ab butéel ak Amadou Ba bu butéel ba gagné. kon nag yéen bu ngeen ma dee comparé ak xam nga respecté wu leen ma bu leen ma comparé ak Amadou Ba parce que man ak amadu Ba du mat bokkuñu. parce que man sénégalais xam nañ ma ci taxawaay sénégalais xam nañ ci fu ma sa xeexee xeexe ba ñëw taxaw seen wet fu ñu mën a ma sa wootee place de l'obélisque wala ñu woote feneen fu dul place de l'obélisque mu fekk ma ci réew mi lépp lu ma doon def dama koy bàyyi dem taxaw askanu Sénégal waa kon Amadou Ba moom fan la demal Sénégal lan la leen mos a defal lu dul randal seen alal waa léegi koo xam ne randal alalu askan wee ko tax a nekk milliardaire ñu naan mook Dame Mbodj bu ñu dee dem mais man Amadou Ba maa ngi moom waruñoo dem élection parce que ñaar ñuy dem élection dañoo war a dañoo war a tolloo témboo sax ñuy seet kuy gagné mais man maag Amadou Ba bokkuñu c'est-à-dire que des fois ma dégg ñu naan ay homme d'état tappalekat ban homme d'état koo xam koo fi dara du nekk directeur général des impôts et domaines nekk fi ay ministre loolu rek nga fi def dara ci réew mi amul lu réew mi mos a def loo am nga ci taxawaay ñu taxaw naan non parce que moom. vraiment moom mooy euh, dinaa ñëwaat moom. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo mu nekk ay kàddu yoo xamante ne. Dame Mbodj moo ko yëkkati moom nee na bu ko kenn comparé ak Amadou Ba Dame Mbodj nee na moom ak Amadou Ba du combat nee na nit yi doyal nañ ci ñoom sénégalais maanaam dañoo pare si ñoom ñu bëgg ñoo jiite waa 2024 moom nag ci waxam dañoo jàngat ni moom nee na Amadou Ba tekkiwul dara indiwul dara Sénégal créé wul dara occupé wul dara alors que Amadou Ba ministre na fi nekk na fi impôt domaine nekk na fi leneen ak leneen lan ak leneen alors moom Dame Mbodj lan la fi nekk nee na nag moom bi ñuy xeexal Sénégal da daan génn ci bedd yi fu ne taxaw na fa Sénégal. boo leen ko xamee nag après ngeen wax ñu ko ci commentaire yi daa mooy li mu def Sénégal ak euh, lu mu taxaw nan la taxawoo Sénégal à part di wër plateau yi di yekk ketame ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ëpp ci pouvoir bi ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey ñi nga xamante ne dañoo boole pat ak organiser di defar suñu Sénégal loolu de yaakaar naa ne mooy liggéeyu dàmbooj moom nag nee na buñ ko comparé ak Amadou Ba léegi nag moom li mu fu tekki ak li mu fi doon après yéen ngeen wax ñu ko ci commentaire yi Mwenye yo are waj Mwenye yo